bon Greg. je suis pas dans les secrets de l'entraîneur mais entraîneur da di bu sensible et c'est lui qui rend compte on pas faire les choses à sa place parce que li muy vivre ak groupe moo ko xam moo tax métier bi il faut ni ko Amara waxee ñu màndu si mm. mais football moo ni demee ku ne mën na ci wax entraîneurs yi aussi ñu ñaax leen ñu ubbi seen xel am nopp mm-hmm. di déglu ñi si biti même bu dul seen métier mm-hmm. mais on ne pas avoir tout le monde comme entraîneur mm-hmm. mais l'entraîneur doit savoir que ce sont les exigences de son métier ki font que tey kenn mënul tere nit ñi ñu wax lu gars yi doon wax combien de million de sénégalais tey ñu ngi wax 17 million de sénégalais 17 millions d' entraîneurs donc métier bi moo mel noonu loolu boo ko intégré wul da ngay sonn tey li ngeen ma laaj suma xam-xam lay joxe ak su ma gis-gis mais du gis-gisu Aliou Cissé ak lu ñu jegante ak fu ñu jaar tey mooy assumer tey mooy rendre compte mais xalaat mën nga am sa xalaat mais konteel ci xalaatu ñeneen ñi man defe naa ne Sénégal fi mu toll ci yoon bi compétition bi Sénégal qualifié na mm-hmm. alhamdulilah mais c'est l'occasion aussi de fair une analyse benn diagnostic ci équipe bi équipe bi am na ñu mag équipe bi war na am ay xale man yàgg naa wax tamit sama gis-gis la mën naa juum xale mooy fubal ma ngay seetaan mais équipe aussi dafa bëgg ñu am expérience ñu fa ne di gunge xale yi nga xam ne oo nañ leen ndax mën nañ xarañ mais seen jaar-jaar mayu leen ñu mën a gis lépp donc dosage boobu jouer sur les équilibres ba am une équipe performant looloo jafe donc li ñuy wax puzzle bi noo koy gérer. ba nga xam ne complémentarité yi nga bëgg dina am nga àgg ci résultat bi ngay wut bon defe naa ne su ko defee man moo may gënal parce que day augmenter vraiment possibilité yi su ko deful day restreindre parce que nit ki dina am occasion boo xam ni il faut nga mettre ko à l'œuvre si nga koy gisee si ngay xamee li làqatu ci moom bu jotee bul ci xalaat def ko man mën naa sori ci loolu sax mhm. bu dul sax móor mais au plan national am na ay xale yu fi nekk mën nañ leen ubbil bunt le championnat local mën na leen bul